sélectionneur du Sénégal a lui aussi Levez la main et donnez votre nom et le nom de votre organisation avant de poser votre question. Y a-t-il des questions Bonsoir coach, euh, Abdoulaye Thiam de Sud Quotidien. Toutes nos nos encouragements suite à cette élimination et bonne continuation. Euh, Est-ce que vous vous dites que le match euh,

Euh, très très très très loin de, de ce que nous sommes capables de faire. Maintenant, comme je dis, il n'y a pas d'excuses. De, on a eu, c'est vrai, deux trois garçons peut-être qui auraient pu nous apporter à ce domaine-là, mais il y a eu vraiment une différence. Je crois qu'on a on a travaillé pendant des années pour euh, être numéro un africain. Aujourd'hui, c'était le, le, le, Big Five euh, du ranking FIFA et, et la différence est, est nettement vue. Euh, bonsoir coach euh, Brahim Soudena de la Mauritanie. Euh, nos encouragements bien sûr après cette élimination parce que je pense que toute l'Afrique était derrière le Sénégal ce soir. Euh, coach, <clears throat> je parlerai pas plutôt euh, du score parce que pour moi ça reste subjectif. Vous avez joué contre l'une des meilleures équipes de, ce, de cette compétition. Ça s'est ressenti aujourd'hui. Ma question est plutôt au niveau de l'état d'esprit. depuis le début de cette compétition, euh, moins bonnes équipes, on va dire, affronter des très très gros, euh, mais faire preuve d'un état d'esprit vraiment de combattant et avoir un résultat euh, peut-être surprenant au final. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment senti ça au niveau de la sélection. Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, exactement je crois que ce n'est pas au niveau de, de, de l'état d'esprit. Je suis fier de mes garçons. Mais il faut avouer aussi la suprématie de cette équipe qui était en face de nous. euh, qui a mis beaucoup d'impact, qui a, qui a, gagné beaucoup de duels, qui nous a fait reculer. Et à partir de là, c'est vrai que ça a été difficile. Ce premier but-là, qu'on prend à 5 minutes de la, de, de, de, comment encore, de la mi-temps, et puis ce deuxième but qui nous, qui nous plombe. mais c'est surtout le troisième but qu'on prend de, euh, tout en début de, de, de, premier, de deuxième mi-temps qui nous, qui nous sort carrément du, match. Mais je, loue la mentalité de mon, équipe. Ils n'ont jamais abandonné, ils ont continué à jouer, à essayer d'avancer. Euh, coach euh, mes encouragements après cette euh, cette élimination c'est Mamadou Salif Gueye de IGFM Sénégal j'avais une question coach en fait, j'aimerais savoir, est-ce que, est-ce que vous vous attendiez à, à cette, à cette fusion, fusion de la rencontre Est-ce que vous attendiez à, à, prendre, à prendre trois buts face aux, Anglais Non, pas du tout, parce que notre force euh, dans cette équipe-là a été toujours notre assise défensive, notre force défensive. Force est de constater aussi que depuis le début de, ce tournoi-là, on souvent pris des buts. Même quand on a marqué trois buts, on a encaissé toujours deux buts. c'est surprenant parce que d'habitude, euh, on a quand même une assise défensive qui nous permet, au moment donné, de faire la différence. Euh, non, je m'attendais pas du tout à, à prendre trois buts. Madame. Euh, coach Ndeidom, je suis là. Euh, Ndeye Dom Diouf, Radio Sénégal, RTS. C'est vrai que euh, l'Angleterre était dominante. Euh, on voit la différence entre les deux équipes. Mais au-delà du résultat, au-delà de la défaite, qu'est-ce que vous avez appris de cette, euh, de, ce, de rencontre qui pourra vous aider euh, pour les prochaines échéances de l'équipe nationale du Sénégal Là, on est dans, le, dans, la Coupe du Monde euh, c'est les meilleures équipes au monde qui sont, là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le Sénégal e Euh, en face de nous, il y avait une équipe qui était euh, cinquième ou quatrième, le Big Five euh, mondial. tout ça, c'est un processus. Aujourd'hui, on a travaillé pendant des années et des années pour arriver à ici notre niveau sur le continent. Maintenant, il faut que l'équipe du Sénégal continue aussi à travailler pour que justement les prochaines Coupes du Monde arrivent à rivaliser face à des, à des équipes de cette, de cette envergure-là et de, ce, de cette qualité. Oh, yeah, euh, coach. Um, can I... que je peux vous demander, monsieur le sectionneur, en voyant les quatre matchs que vous avez joués, à quel point est-ce que Sadio Mani vous a manqué Et je sais que vous venez de signer un contrat. Est-ce que vous pensez euh, déjà rester, continuer avec ce projet euh, à la tête de l'équipe du Sénégal Pour l'instant, euh, je ne veux pas parler de mon, de mon avenir. Je crois qu'il y a une défaite euh, qui est là. Donc, on va d'abord euh, prendre les enseignements concernant cette, défaite. Et après, on verra bien ce qui se passera. Pour l'instant, je suis le sélectionneur de cette équipe nationale et l'avenir nous dira. oui, oui, bien sûr. Un joueur du calibre de Mané. je le dis depuis le début de cette euh, compétition-là, on manque forcément à une équipe comme le, Sénégal. Mais l'ensemble, le collectif, je pense qu'a été intéressant. Des joueurs ont répondu. Et je le dis, euh, je ne suis pas insatisfait vraiment de l'ensemble des quatre matchs qu'on a fait, avec des garçons qui pris des responsabilités et qui ont élever aussi le niveau. Merci. Coach euh, Bakary Sissé du Journal Record. Coach, quand on perd euh, des joueurs comme euh, Edoussa Ganagay, Cheikh Okata, qui connaissent bien le football anglais, et que derrière, vous, vous jetez dans le bain quatre jours en vocation offensive, c'est-à-dire euh, les trois de devant et Eliman euh, Ndiaye. Qu'est-ce que vous cherchez en réalité, si on sait que c'est un match couperé qui pouvait aller jusqu'à jusqu'au jusqu jusqu Écoutez, c'est un choix, c'est un choix tactique. Je pense que il s'agit pas, il s'agissait pas, au un moment donné, de se mettre derrière à, à 10 et, et, attendre que les vagues arrivent sur nous. Il fallait qu'on qu quelques problèmes à cette équipe-là. Je pense que pendant 30 minutes, on a pu le, faire, on a pu, exister. Et l'objectif, c'était de jouer. J'ai demandé à mon équipe euh, de, jouer parce qu'il servait rien du tout de prendre les ballons et de les balancer. Parce que si vous balancez les ballons, les ballons vont revenir. Donc l'objectif, c'est de pouvoir jouer, sortir et combiner. Et on a su bien le faire. Euh, coach euh, Moumoud Ismaël Souleymane, Teranga News, merci d'avoir euh, porté, les couleurs du Sénégal parmi les 16 nations du monde. Coach, j'ai constaté à chaque fois que la défense, la défense était acculée, elle paniquait. quel que soit le schéma optimal mis en place, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de changer de système euh, tactique par rapport à cette situation Ensuite, nous avons vu que euh, par rapport euh, au, rôle de taulier, de taulier attendu de, de Pape, euh, comment s'appelle encore notre milieu défensif, le rôle joué attendu n'était pas le résultat attendu n'était pas au rendez-vous. Secondo, nous avons vu un crépin reculant, Boulaïdia Euh, court physiquement. Euh, même si au niveau, on a vu qu'au niveau tactique en seconde période euh, par rapport au, à la mutation en quatre deux trois 1, ça allait mieux. Est-ce que ce pas euh, une erreur, une erreur d'appréciation de votre part, vu que vous étiez malade et que peut-être ça a un peu impacté Bon, il y a plusieurs questions dans votre <laughs> question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la force du Sénégal avant de venir dans cette Coupe du Monde-là, c'était quand même notre assise euh, défensive. Tout le monde a témoigné que l'équipe du Sénégal, c'était une équipe qui ne, qui ne prenait pas beaucoup de buts. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, le fait d'avoir pris autant de buts dans cette compétition est inexplicable. Donc, euh, il faut, il faut, il faut que nous nous, nous améliorons là-dessus. Ce n'est pas un problème de système. Euh, on montré lors de la Cannes qu'on était capable d'aller jusqu'à la finale euh, sans pourtant prendre beaucoup de buts. Euh, maintenant, comme je l'ai dit, euh, ce qui est valable à la Coupe, à d'Afrique n'est pas, valable à la, Coupe du Monde. Donc, euh, les, erreurs chaque erreur qu'on a commise, l'équipe adverse nous l'a fait payer cash. Euh, coach, vous pouvez nous donner de Jude Bellingham ce soir et son impact sur le jeu Si vous pouvez nous donner vos impressions de Jude Bellingham et l'impact qu'il a, eu ce soir. Bellingham. je le disais, une, très belle équipe. Bellingham, Anderson, Rice, c'est vraiment des, joueurs avec beaucoup d'impact, euh, très athlétiques,

Merci, coach. Euh, Aruna Dem du journal Vox Populi. Félicitations pour le parcours du Sénégal. Et la question, c'est de savoir le regard que vous jetez après cette élimination-là sur le parcours de l'Afrique qui n'était pas attendu à ce niveau-là, mais qui a répondu présente euh, à cette Coupe du Monde. Le football africain est en train de, de, de, de s'améliorer et comme je le dis, c'est un processus aujourd'hui. Ça, ne se décrète pas aujourd'hui d'être euh, champion du monde Aujourd'hui, euh, en Afrique, euh, les infrastructures commencent à, à, à se bonifier. Euh, il y a aujourd'hui une véritable volonté des directions techniques de former les, les entraîneurs. il faut donner encore plus de possibilités justement aux directeurs techniques de pouvoir aussi travailler. Euh, au niveau des arbitres, on voit aussi que c'est en train de, de, de, de progresser. Euh, nos États aujourd'hui sont en train d'œuvrer pour que notre football avance et je crois que c'est dans ce domaine-là qu'on peut, arriver. Euh, les choses ne peuvent pas se décréter. Pendant des années, on a fait des coups. Maintenant, avec des générations spontanées, je crois qu'aujourd'hui, dans tous les pays où vous allez euh, sur le continent africain, il y a vraiment une politique sportive qui se, met en place. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à, œuvrer, à travailler justement euh, pour, améliorer tout ça et pouvoir rivaliser justement et gagner ces genres de championnats-là. We have time for one last. Nous avons le temps pour encore une question. De panafricaine. Euh, félicitations pour le parcours que vous avez eu. Vous avez hissé le drapeau africain. Euh, coach, depuis octobre le Sénégal n'a pas encaissé trois buts. Euh, comment vous expliquez le manque de réaction depuis que le but de On a l'impression que vos joueurs ont rendu l'âme. Non, j'ai pas eu, euh, cette impression-là. Je pense que, comme je le dis, on a, pris ces buts-là sur, à moment donné, des erreurs, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, de, techniques où on doit donner le ballon, on perd le ballon et à ce niveau-là, les garçons qui sont, qui sont en face de vous, quand vous perdez ces ballons-là, dans ces endroits du, du, du, du terrain, tout, ils sont dans les transitions, ils sont très forts, ils sont, c'est des bons finisseurs. Comme je l'ai dit, le haut niveau, c'est ça, c'est des micro-détails, c'est des détails, et ce sont des ballons qu'il faut pas perdre, ce sont des situations de jeu qu'il faut être très attentif, parce qu'il en faut pas beaucoup pour que eux, concrétisent euh, leurs occasions. Je crois que c'est l'expérience des, grands joueurs, c'est l'expérience des, grandes équipes. Merci beaucoup.